mbokk yi ñoo ngi fii ci Paris Bergerie pas Porte Mayo. Africa Leadership Award le 2 novembre ànd ceeg le président Malick Diop mi nga xam ni réew mépp moom la ñuy fi mu ne jaar ci aduna bi Africa Leadership Awards lañuy waxtane. Waye waaye ki koy organiser day jambar fak teud. di koo xam ne ndeyam da koo gërëm bàyyam gërëm ko muy setu la jor ngol la tir Diop sa xew soxna mbay Diop ma di soxna ñaan sa xew Fatma ma gonam xel mañ gànna leen gànna kuli kuli jar gaan ngaan baradaam geeloo géet géet njaajaan njaay njaay abor daanaare sama waaye sa yaay ku topp dana ba kër alburi alburi ben penn jéema ngi te mu kaari diga saamu leen ben penn fëri ma dimba dora ba ben kura kandi sa daagale jëleen bay léegi léegi cukli cukli njiglaan njiglaan sare sare njaay njaay maam moo am tuur la ok daf la war a loolu moom daf la war a jël face to face daf ma war a jël face to face non non léegi léegi da nga ñëw aéroport quoi moom embouteillage dama non bien sûr dama ñëw aéroport moo am embouteillage foo jaar oto yi mënuñoo dem ndax nag ki woote moo ko waral muy président Mbagnick Diop jàmbaar ji doomu Souleymane Diop yu mbaax intellectuel au niveau ba moo woote fii ci Paris moo tax bi ñu yegsee temps yow ñëw nga aéroport gis nga ñu bi ñu kenn laaj ñu sax suñu dossier ndax kan ki ñu àndal président MEDES booy ànd da ngay ànd ak kuy dem boolewul dara ki wax ak a baax ci dara jàmm rakam ju baax jaa ngi ni toog Moustapha Diop jóge ba Allemagne ñëw tey ngir bis bi am na ñoo xam ne jóge nañu New York am ñoo xam ne jóge nañu Washington am ñoo xam ne jóge nañu Italie fu la xalaat ci àdduna nit ñi jóge nañ fa pour bis bi kon président ma jóg yàlla yàlla bu da safal ñun mënu mel moo xamante ni réew point comme la nekk nga indi ko fi pour la première na ma Omar Seck kenn la bëgg xale yi dañ laa sopp ndax yow ku la am da lay tiitaroo ku la am da lay sagoo jóg barke alxuraan karim yow na moo dara ñun dañoo xam ne nag yow yaa namul dara te boole woo dara ak yow bëri ko bu def dara kenn ko dégg yi def dara rek lay dàqal yow yal na yàlla gudd fan doomu ñay kenn du ko ñaanal ngay dañ koy ñaanal gudd fan su guddee fan fa ndeyam ak bàyyam tegoon tànka bi def teg tànka yal na yàlla gudd fan jóob jàmbaar nga Serigne Moustapha Bara Falilou Mbacké doomam ñëw la ci bis bi ngir dara yaa bis bi ndax yaa mel noonu yaa toll noonu yow jóg boo jógee Touba jóg soo jógee Tivaouane jóg soo jógee Ndiassane jóg boo jógee ñëpp jóg ndax yow kër yëpp la bëgg a jóg ndax li nga mel président ba jig yaa baax yaay as gor yaay fekk fu dara néew nga rafetal ñun meluñu woon nen bokkuñu woon ci course bi kenn mënuñu woon lépp mais bu ñu dee ba ñu tudd tey grâce à toi mais bu lekkee olof na ko gën a nekk coy yal na yàlla bu defal yaa ma def star yaa ma tàll yaa ma def star le 2 novembre 2019 fii la waaye ci le 10 novembre 2020 ci le 10 novembre 2020 le 28 la il a yokk na exclusivité ba date laa bëggoon xam nee na le 28 novembre 2020 ay waay yàlla na ci yàlla yóbbu jàmm le 10 moo ñëw ci xel bi man le 10 la ñu sam xel waaye mu ngi gërëm bu baax kenn ci ñun di sunu yaay yi ah, ah, di madame Diop ah, cheikh bi Khady Diop Sané Sané ñam Diop mi nga xam ni moo jàppale président Bassirou Diop ñëw na ànd ak délégation ànd nag ak ajatu maam Ndiaye ànd ak ñoom xale yëpp ñëw nañu ak ñoom Moustapha Diop kenn desul suñu yaay jooju ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel di ko ziar di ko wax ne bés bi yàlla ci am ndam ndax moom suñu yaay jatu saane ndamam mooy ndamu président ba ji Diop ku yàgg jàppale président ba ji Diop koo xam ne du xadd du na sonnaa du na onk naa du na lenn lu bëgg président ba ji Diop ànd ak moom ci ngor ànd ak moom ci jom ànd ak moom ci fulla ak fayda bëgg président président ba ji Diop ko saa suñu toog ko wax buy wax ci président Mbaye Diop sax day jooy man jàpp naa ni moom président rek la am suñu yaay jot saa ñu ngi lay gërëm la sant yaa fi